siiw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp luy Ah, yaakaar naa ne loolu leer na waaye tamit dañuy daal di ñëwaat rek ci beneen question boo xam ne ak kenn ci ay njabootu Wally Ballago Seck laa ko mën a wax ndax faramareen la ah, moom moo daal di génn daal di wax linumel bidéo bi muy def buzz muy Pawlish mbay ah, moom dafa génn daal di ŋaññ artistes yi nga xam ne ñoo doon jotee ko Wally Ballago Seck bi baayam di dundu ak ñi nga xam ne papa dañuy sànni track baayam ñëw. jaale ci ki nga xamne modi wali balago sek yow en tant que kilifa ci groupe bobé acte bobu nga xamne ne élément def nako limu wax am ci droit am dit xam nga li tax mu wax ko ak peut-être moment bi mu koy wax ak yek yek bi mu am bi mu koy wax lolu peut-être. ci mom la nek wa xam nga. xam nga man am personne. man Samy waxuma Jean waxuma Paul waxuma masamba waxuma Mademba man lay wax tey bu ñu jàppante woon man ak yow ba xuloo wax ju ñaaw jóge ci yow ñëw ci man wax wax bu ñaaw jóge ci man ñëw ci yow noo xolal bu sa papa dee ak sa yaay doomu ma gis maanaam yow Pawlish man Pawlish li mu wax barki Serigne Saliou dégluwuma ko seetaanuma ko yaa ma ko wax. mais dama la wax ne le principe man ni may doxee. man tey nu may doxee. xam lan moo tax loolu parce que dañoo ne dee bokkul ak dara ki mën a nga bañ a am moom xaar ma nga dégg métit ci moom nga dem ma saw ko. ça dépend ci niveau. ci xar ma yàlla bi xam nga waali amul ak kenn xaar ma yàlla da ngeen mës a dégg waali wax kenn lu ñaaw. Hmm. man de mësuma dégg sax ku wax waali lu ñaaw. Hmm. da nga koy nëbb mbaa nga koy nguur-nguur ci suuf peut-être nag Pawlish li tax mu def vidéo boobu peut-être amul dans sa vie ci passage am mës naa toog ak ñenn ci ñooñu comprendre nga ñu wax waale lu ñaaw mu dégg walla mu gis ko mais man laa la wax ne la man Samy Thioune je bien mes mots man Samy Thioune bu ma jotee woon ak yow lu ñaaw. ba mu metti ma. ma wax la lu ñaaw ba mu metti la. ba ñu toog benn moment bi gisewuñu non bu sama yaay gaañoo wala sama papa. non bu fa ñëw di ma jaale. ndax loo deele du ma ñëw. ndax man je pas un hypocrite waaw man laa la wax man nag la concerné lii may wax jàppante nañu wax nga ma tam nga ma dëmm tam naa la dëmm non bu sa yaay gaño wala sam papa gaño bul dem kër dem ya ndax nak yaa ñu dem di buma délé bul dem kër dem ya di jalé ndax yaa ma ko tamoon man lima concerné lool la lay wax waaw sindu jammi bom ma ci xam dara lepp lu yëngu yow la ñoo koy di yegulo fekke